question boobu euh, dafa am lu ma génn noonu wax ko ci ma bëgg ko leeral Sénégalais yi parce que dama ni woon euh, ki nga xam ni dafa doon ñàkk kersa di wax lu dul noonu di calomnier Ousmane Sonko dafa am ku tudd Abdou njaay abdu njaay nag euh, maire la ca kër Maba Diakhou Ba kooku expliqué nañ ma kaawam envoyé ma ay vidéo léegi nag bu ñu dee génnee sàmma Ndiaye dañuy génnewaale euh, image yu Abdou njaay bind ci Samba Ndiaye loolu moo tax ma génn def intervention boobu def liaison bi ni bokkuñu wante ba ma gëstoo ak patriotes yi nga xam ni ñoo yore parti bi ndax patriotes yi ñooy cotiser patriotes yi aussi ñoom ñoo tax ba Sénégal ñu teg suñu loxo patriotes yooyu maa ngi nuyu Ibrahima Guèye nay leer ñu leeral ma bu baax ni naam Abdou njaay dafa yàgg di saaga di wax lu dul noonu di calomnier Ousmane Sonko waaye Samba Ndiaye it da koy def ñu ne ma ñoom ñaar ñépp la sàmma Ndiaye ak Abdou Ndiaye yëpp ku ci nekk traité nga Ousmane Sonko de góor jigéen traité nga que du n'importe quoi lu nga xam ni véritablement un responsable sax waru ko wax parce que un responsable dafa am nooy waxee quelqu'un qui est capable d'occuper un post de responsabilité bu fekkee ni munoo am hauteur d'esprit dans le langage mais bu ñu la joxee responsabilité tamit doo ko doxal donc je suis singulièrement contre cette nomination de Samba Ndiaye la ba pare il faut que les choses soient claires munuñu ni ñu wéy bien que man ci biir laa nekk man munuma wax sénégalais yi ni leen véritablement politique ak euh, administration bokkul donc ñiy def politique nañ yem ci politique ñiy def administration nañ yem déedéet politique bi mooy ndeyu gouvernement bi ñu teg parce que bu dul woon dañ def politique ba gagné kon du ñu teg gouvernement du ñu teg ay directeurs généraux du ñu leen jox ay lenge pour ñu mën di nommer loolu bu amee nag dañu war a def la part des choses d'abord nomination bala ñuy nommer kenn mais boo duggee ci Google rek nga bind sàmma Ndiaye mais véritablement war nga xam ni kii dafa doon wax nangam ak nangam ak nangam nangam te sa demande une enquête de moralité moi je suis de tout cœur avec véritablement <coughs> les patriotes je suis de tout cœur avec les partis et je demande solennellement à Samba Ndiaye de démissionner na démissionner vraiment ak li mu wax yëpp am na yoo xam ne ñàkk jom gu ma tëkk la nañ ko bàyyi les gens n'ont qu'à aller à l'opposition am na euh, post position yoo nga xam ni bu fekkee da nga ko assumer di ko wax muy leer nga rek joññante ak ñun ba mu jur ay dee jur ay confrontation parce que kilifa boo toogee di wax wax ji day yëngal xolu ay xale xolu ay étudiant xolu ay nit léegi nag yëngal boobu muy yëngal xolu nit ñi dina tax ñooñu nekk dans l'extase ba nga xam ni mën nañu dem di def manifestation ba loolu jur euh, ay dee donc yooyu yëpp c'est des responsabilités engagées mag moo xam ne nag yow da ngay wax lu warul di ko def mu wóor la ni lii ngay wax du dëgg nga insister ci di insister si li nga xam ni du dëgg comme booy bi booy bi nga xam ni keroog man magum jëm bu waay na biram xujaloo toog seen TV di wax lan la ma wax wéy mag dafay xam lu muy kii bi ñu jàpp parce que man attention dafa am ñu nga xam ni dañu dëggu di jàng alxuraan di def lépp ba pare tegu ci yoon tu peux pas leur manquer de respect comme ça c'est pas possible mais ils ont l'habitude képp ku ñëw rek ñu manqué ko respect mais képp ku ñëw rek ñu manqué ko respect parce que ñoom seen position te seen position du position dëgg du position bu nga xam ni position bu bu responsable la ay njuuj njaaj rek la ñuy wax di faralante te man faraluma gouvernement faraluma kenn la preuve tey gouvernement bi jël na décision ni dafay nommer Samba Ndiaye je suis contre kon man ak position bu ma mun munti nekk dëgg gi laa taxaw di wax Samba Ndiaye mënul nekk di ñu saaga di ñu xas di def lu nekk guddeeg bëccëg tubaab ngoon mais man ci sama biir parti man dama fusionné mais sama biir parti am na ay enseignants est-ce que laaj nañ ma CV ñooñu pour nommer am na ay ingénieurs te ñun ñëpp dañu fusionné donc il faut que ñu équilibrer affaire yi il faut aussi ñu respecter tout le monde man c'est ça que je dis à ceux qui nous gouvernent à Ousmane Sonko lui-même et à Bassirou Diomaye Diakhar Faye. mais monsieur tey lan ngeen teg comme raison que ni euh, monsieur Samba Ndiaye ñu ko mën a PCA lan mooy motive motive seen ay motivation motivation bi c'est clair net et précis. mii bu nekkee responsable la am na foo xam ni du fa àggale kàddoom day woddu kàddoom loolu bokk na ci responsable. gis nga tey bu doon nommé directeur d'école dañu war a xool cursus koo xam ni nekkul di saaga. di xaste di def du n'importe quoi parce que kooku bu ñu ko nomee mais xare yi dañu war a roy ci moom te bu ñu gisee ni kii mi ngi doon saaga démb bërki démb tey ñu nome ko mais ñoom dañu naan naa saaga ëllëg dinañ ma nome wala dañ naan la mu doon wax xëy na dafa am lu ci am donc je suis foncièrement contre démb bi ma génnee di wax booba xaw ma ne woon Samba Ndiaye mi mais après ils m'ont envoyé les vidéos patriotes yëpp dañu envoyé les vidéos te wax nañu dëgg ay la yeween Samba Ndiaye Abdou Ndiaye nañu dem opposé ji fa ñu nekkoon ñu nekk fa nit da ngay assumer sa responsabilité te li ma leen di digal muy ñu bàyyi saaga ak xaste ak wax lu leen wóorul parce que képp loo doon wax lu la wóorul wala tàggu am na ñu nga xam ni ci biir wax ji maandu nañ ndax dañu ne ah man de Ousmane ko fa dem mais am na ñoo xam ne dañu saaga wax lu nekk calomnier que moom moo nekk di jàppal jàngal xale yi ay góor lu ne la ñu wax ba loolu man bu ma leen joge woon dinaa xeex ñoom waa kooku tey ñu jël ko no ko nommé ñu ne PCA du dara d'accord mais nomination boobu. dafa dul exemplaire am exemplarité waaw dama ne am na yu ko ëpp jiit ko am na parce que Sénégal malheureusement ah, comme ko jàppee mooy PCA du dara alors que PCA mooy définir kooku mu xamul dara ci ko neex léegi nag xam dara boobu yëpp fekk mu am déontologie ak morale mais ku amul éthique déontologie ak morale mooy toog di wax lu ko wóorul ba di ci saaga pour plaire à quelqu'un loolu laay wax kilifa dama ni il est responsable parce que nit la ku nga xam ni ba ñuy jël position dafa jël position taxaw ca dëgg ba dama ni la personnalité mooy loolu mais ku amul personnalité nan nga koy nommé ça aussi le problème. tey bu ñu dikkaatee ba tey par rapport à la nomination de Samba Samba Ndiaye ban xamante ni daf leen doon xarab démb donc jàppale parce que moom ci projet di tudd ay tur jàpp naa ne Sénégal ñun ñoom ñoo ko bokk jàpp naa ne sénégalais bu talentueux mhm. mérite na occuper une fonction premièrement deuxièmement jàpp naa ne Pastef moomul Sénégal dañ leen fal c'est pas leur militant ñoo leen c'est les ñoo def sursaut eux ils ont porté un ils ont porté un projet les Sénégalais adhéré ci fal leen à cinquante quatre loolu benn pour ay valeur pour xëy na jooyanti li Sénégalais yi jàpp ne comme lu meloon nii perception bi ñu am ci justice bi ñu jooyanti ko comme perception bi ñu am te sax mu doon dëgg depuis indépendance ba tey élite